li ma poussé pour ma créer oto bi créer nag créer ko créer ba ma commencé créer 97 laa commencé créer 97 97 defaroon benn oto boo xam ne dafa am télécommande amoon benn gouverneur bi fi nekkoon bu ñu naan Mame Birame boobu ko ci Mame Birame Diouf woon ko ko donc yàgg naa créer mais ak suma liggéey xëy na moom permettre may nekk ci création bi ak yooyu la woon moo taxoon ma bàyyi woon bàyyi woon na daal lu yàgg yàgg bon après nag ba ren ma ne xaaral ma créer waat def dara def dara pour wane ne Sénégal yi capable lañ dara mën nañ def dara waaw pour fa nga wane ne Sénégal ñun mën nañ dara mën nañ def dara te li ma mën nii samay junni morom mën nañ ko xëy na moyen yi lañ amul xëy na loolu la samay junni morom mën nañ ko parce que am na sax benn gaayan bu créé euh, woon benn oto bu nekk kees waaw ñu ngi koy wooyee bay lañ jaay bay lañ jaay xam nga ñooñu booy xool ay référence lañ ay référence lañ ñooñu ay ñu ay référence lañ yi ñu jëri jàpp lañ am na ci encore beneen booy bu créé woon benn oto encore ba am 18 ans maa ngi koy seet seen yi ci internet bi xam nga ñooñu ñu jërë jàppale lañ parce que même booy boso mi ngi mi ngi motivé gars yi jeunes yi ne jeunes yi nañ bàyyi moo ne jeunes yi nañ bàyyi nañ bàyyi euh, fo bi concentré ci création bi te wax na dëgg nag genre booy yooyu ñoo jar jàppale waaw loolu loolu moom ci gën a motivé pour pour nit ñi góorgóorlu daal waaw moom ci gën a motivé pour ma créé ko waaw euh, waaw ah, oto bi de ay weñ laa jënd mën naa ko defar sama loxo bopp waaw sa ay weñ laa jëm jënd ay weñ nii ci marché bi jënd samay fer euh, jënd sama fer à huile ko defar rek fer à de cinquante laa ko defaree ak cornière ak ay tiburon ak tôle loolu laa ko defaree ñeenti éléments laa ko defaree ak fer plat cinq éléments yooyu laa defaree kii bi ma ko commencé ba léegi na mën na huit mois yaakaar naa ñu ko commencé le quinze quatrième mois lañ ko commencé le quinze quatrième mois lañ commencé oto bi mais ginnaaw man amoon temps léeg-léeg damay tukki léeg-léeg bi boo xoolee arrêté naa ko lu ma trois mois yaa nga ne defaruma ko donc booy xool ko ci laa ko defar moom

waaw léegi li ma gën a inspiré bu ma def ko ci ginnaaw man dama gis la plupart oto yi bu ñu accidenté yi souvent bu ñu bëkkee rek nga gis léegi radiateur bi radiateur bi bënn wala bloc moteur bi toj wala hélice bi toj oto oto oto bi demati oto bi demati bañ a demati man moo tax man a inspiré wu tam te su booy créé nag booy fekk da def différence ak ñeneen il faut nga def différence ak ñeneen ñi création loolu mooy loolu la création maanaam pas nga ko ci kanam xam nga loolu yomb koy teg def leneen def leneen lu wut ak nit ñi waaw loolu la tey oto bi yàlla tere kenn ñaanul yàlla daw di accident oto bi tey bu doon bu mbëkk bu doon bu mbëkk dara bu doon bu mbëkk dara ni tëf amul dara lu koy empêche mu dem parce que lépp lu koy dawal muy batterie yi radiateur yi ba lépp déclencheur yi lépp mi ngi ci ginnaaw c'est c'est castré donc même oto am na ci oto yoo xam ne par exemple day daw mbëkk benn doo daan nii su mbëkkee doo daan quartier bi toj moteur bi yàqu bii moom fekku ko ci parce que bii dama ko castré dama ko def lu mel ne genre caisse teg moteur bi ci kaw moteur bi quartier bi amul franc muy suuf gi oto bi suuf gi amul dara ci yàqu suuf la lépp ci kaw laa ko bi lépp ci kaw la jaaree dara jaarul ci suuf waaw. donc donc bu mu la déggee bu mu waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw soo gisee ma yóbbu leen ci bi loolu la boo gisee ma yóbbu leen ci bi fële jël oto bi tourné leen ko mu ngeen gis ma tourné leen ko parce que euh, nit ku ñuul dafa euh, dafa mën a xeeb euh, moromam te mu ne bon li Sénégalais ko def rek baax Sénégalais ko def baax non non du noonu parce que oto ñi ko defar ay nit lañ ñuy ay nit ñi ko defar ay nit lañ ñuy ay nit te premier oto yi oto yi bi tubaab njëkk a créé boo ko xoolee comme brouette xam nga brouette brouette nii oto bi tubaab bi njëkk a comme brouette donc man sama bii su mooy sama premier oto donc man naa ne sama premier oto bi tubaab bi njëkk defar sama premier oto moo ko dàq man sama premier oto bi ma njëkk a defar moo dàq premier oto tubaab parce que premier am nañu ci dee am na ci kii mais teewul tubaab dafa tubaab dafa bëgg dara dafa bëgg liggéey teewul dañuy continuer rek dem dem dem dañuy continuer di dem ba ci avion avion bi ñu koy defar gis nga ko bi koy defar dafa parce que ay ay tib ay tib rek ay weñ ay weñ yuy naaw la rek ay weñ yuy naaw nii amul am amul carénage amul dara ñu koy defar daanu ci am ñu ci dee mais teewul dañuy continuer nekk ci di ñafe di ñafe ñafe ñafe ñafe ba mu jóg ba mu jógee bañ dee bàyyi ko fi bañ ñëw yokkaat donc mooy lii rek oto bi man dama defar nii rek xëy na man sama âge sax man maa dem parce que man maa euh, ans donc maa dem léegi ma dugg 50 ans xëy na lii mën nañ ko fi def parce que yeneen génération yi ñëw xool ci roy ci waaw man loolu tax ma def ko man bëgg sama loolu tax ma créé ko man maa ngi liggéey di liggéey loolu tax ma créé ko parce que ñenn ñi mën nañ ñëw roy ci parce que kii man maa ko defal ba mu jeex tàkk dërëm kenn dugg ci amul ku ci dugg un franc may jël sama xaalis jënd jël sama matériel def ko ci ba mu jeex kon xam nga kon donc loolu bëgg-bëgg la bëgg-bëgg la li ma bëgg la et puis bëgg-bëgg la et dafa jàngal nit ñi ne nit dafa war a góorgóor nit lu mu bëgg mën na ko mën na ko waaw euh, sànq ni yaa ngi doon wax sa xaalis nga jël nga dugal ci au total boo xayma lépp li nga war a dépensé ci fabrication oto bi à peu près ñaata la ñaata ñaata la la dikkee. waaw man bi may fabriqué dama doon parce que gannaaw damay def te li ma doon def damay def pour euh, wane ne mën nañ dara loolu la ci jublu woon mais bindu mi xam naa ne jël na ay millions moom jël na ko ci parce que boo xoolee tool bi rek day jël tool bi mu rek euh, maa ngi ko jënd seize mille cinq cent tool bi te jël naa ci dix fer yi beneen fer bi mooy de cinquante bi waxal jënd naa huit benn dix-huit bi lay jar ainsi de suite ainsi de suite maanaam moo calculé moteur yi xëy na bagage yi man maa koy jaay signal yi sama magasin laa génn defar ko xëy moo tax mais su ko calculé woon moom ay millions dem na ci mais man su ay millions lu mu bëri man jaral na ko parce que il faut nga wane fi dara tam xam nga dem ci nit mën naa lii mën naa lii te wane ko amul ñi ma xam bu ñu ma gisee dañ xam ne mën naa defar lu xamaguñ la mais ñi ma xam lu ma gis xam ne lu ma bëgg ne mën naa ko defar lu ma gis mën naa ko defar dañaan mën nga ko defar parce que création yàgg naa ci lu ne defar naa ko fi waaw batula joolaa bi ngay séenee defaroon naa ko bi rafet ba defar ko ba mu rafet ba nga xam ne boo ko gisee rek soo gisee maquette bi ne da nga koy bëgg daw avance arrière yëpp defoon naa ko fi loolu 97 laa ko fi laa defaroon loolu loolu yàgg na waaw même fii sax am na beneen gars bu fi nekk bu ñaan Antoine Kali kooku suma xarit woon kooku moom daanaka boo gisee mu bëggoon ma sax lii tax mu bëgg ma dafa daal ñëw sama magasin ma ci boppam xam nga créateurs yi dañuy bëggante bëgg bëgg dara maam moom ñoo bokk li ñuy def dañuy bëggante léegi Antoine Kali moomu yaakaar naa ne moom moo njëkk créé oto Sénégal sax suma juumul parce que xam naa ne peut-être bi dafa amul suivi wala nangam nangam nit ñi xamuñ ko mais 97 la créé oto boobu moom oto bi njëkk daw Sénégal kooku ak Tidiane Bari RTS moo defoon reportage boobu Tidiane Bari RTS moom fekkee mi ngi dégg moom moo defoon reportage boobu ki njëkk dafa oto ngi dafa 97 Antoine Calé mais amul suivi xam naa ne ak boobu internet bi amul journal bi yombul xëy moo tax euh, ñu bëri xamuñ histoire bi mais kooku sama xarit la oto boobu ba mu koy defar boobu maa ngi nekk tout tànk am 20 ans 20 ans xaw ma 19 ans nekkoon ci biiram nekkoon ci biir parce que dama ko doon fréquente dama ko doon fréquente parce que man boobu 97 oto oto am télécommande man tam. Hmm. Hmm. ah dans le futur man mën naa lu ne oto moom oto xam nga defar naa bii lii boo xoolee oto la rek donc oto bi ma defar dafa complet man oto boobu complet laa defar parce que defar naa oto yóbbu naa leen dawal naa ko gis nga ko sama oto day arrière am na arrière te sama oto tam mën naa ko jox keneen mu dawal ko parce que dama ko defar ci norme oto laa ko defaroon. defal ma benn oto boo xam ne nii rek man rek maa ko mën a dawal ñëw ma ko jox kenn déedéet tey ku mën a oto fii mën naa ko jox léegi mu dawal da koy dawal normal ku mën oto bu ñëw mën na ko dawal première bi ci kanam la jëm comme oto yi moom dafay ñëw oto bi di ma ba amee yenn yu may xool moom laay jox mu dem dawal ma taxaw di ko xool parce que oto boo koy defar tam da ko réglé réglage yi boo koy réglé yow mënoo nekk ci biir il faut que kenn dawal dem ñëw nga taxaw xool ko waaw donc oto bi ma defar dama ko def a ay normes yu yoon laa ko defar maanaam même sama oto bi bu gënaaw ñu même bu ñu mënoon sax ko yóbbu fu ne ñu dem essayé ji ko yóbbu ko ci machines yi service humains yi yeeg machines yoo xam ne baaji xool oto bi am defoo gépp oto bi ñeme naa ko waaw non oto bi moom du jaay oto bi moom jaayul oto bi moom jaayul ma dama ko créé nii rek créé Sénégal la nekk biir Sénégal damay góorgóorlu créé pour wane ne ñun mën nañ dara et puis sax ma jéem a siggi réew mi sax mi xam nga tey bu ñu ne Sénégal yi mënuñ dara man dafa may net métti parce que man Sénégal laaw waaw jéem réew mi maanaam jéem a siggi réew mi moo tax ma def ko mais di lu pour jaay te oto bi nag ma sañoon su ma sañoon hmm, euh, ñu ñu may ma ci ay ñu légaliser ko ma koy dawal di ko tukki def lépp di dem Dakar di ci dem fépp fu ma bëgg dem dem ji ñu xam ne Sénégalais capable na defar oto muy muy tukki man defar oto fooy gay de dafa am oto fooyukaay oto fooyu xam day dem fii ñëw déedéet man sama oto bi tour de Sénégal mën na ko def tour de Sénégal war na yàlla bu ma jox autorisation man naa def tour de Sénégal norme ak norme yi ko oto di demee lay koy demee tey su ma départoon dem Dakar heure bi oto yi Dakar lay Dakar donc sama oto bi bëgg naa li ma ci gën a bëgg ñu ma ci ay këyit ñu may ma ay këyit moom bëgg naa ko euh, waaw oto bi sama nijaay laa ko tuddee sama nijaay Modou Falmata Diagne kooku sama xarit la sama lépp la kooku ba ma am 16 ans lañ ma ko jox ba ma am 16 ans lañ ma ko jox daanaka parce que sama papa dafa teel a gaañu donc moo ma yar bi ma yaree jàngal ma métier dugg naa nekk mécanicien nag mais yàgguma ci def naa soudeur métallique mais yàgguma ci parce que moom commerçant la woon commerçant mag la woon commerçant mag la sax ba léegi commerçant mag la ba léegi moom bi ma jàngee ba ma xammee xam ma a dagg weñ ba xam weñ ba xam mën ba xam ni ñuy seeree weñ ba xam ba xam pièce tur yi daf ma jël yóbbu ma ci magasin jàngal ma pièce de détaché moo ma jàngal pièce détachée kon kooku suma lépp la daanaka kooku mën naa ne lépp lu ma mën ci àdduna moom la parce que ba may defar oto yu ndaw yooyu 97 boobu xaalis jafe na xaalis yombul moom moo doon jël ay 150 mille mu jël mille jox ma ko ne ma am dama la nga xool li nga bëgg a créé nga créé ko maanaam moom li lépp lu may lu may def da ciy participer moom maanaam moom euh, parfois da ngay def dara sax yenn ñi naan oh, bon kii dafa am xaalis di yàq xaalisam wala mais moom lu ma def daf may encouragé te loolu ma te nit loolu ma ci solo nit lépp looy def say mbokk encouragé rek loolu ma li ci am moo ci donc moom laa ko tuddee maanaam oto bi faal bi bëgg sama def ko ci faal bi parce que maa ko defar rek moo tax ma def ko ci faal bi mais moom fii fii jigéen jour ñoom jaañ lañ xam jaañ moo tax ma def ci jaañ donc oto bi moom laa ko tuddee oto bi markam la ci ginnaaw ci ginnaaw bi na ci Sénégal bëgg naa nag boo gis ma def ci Sénégal bi dama bëgg Sénégal yi apprécier ko parce que man lépp lu mu tuddee sama nijaay su ma sañoon nit ñëpp dañ nit ñi dañ koy apprécier mais oto bi sama nijaay laa ko tuddee waaw mooy Modou Famata Diagne ki nga xam ne mooy sama àdduna lépp moom la moo ma jàngal métier moo ma mën métier mu ber ma mu ber ma dama liggéey ma dem liggéey di liggéey ñëpp comme ni ñëpp di am ay millions comme ñëpp nag laa wax waaw Hmm? waaw ma ne. Hmm? oto bi de moom créé naa ko mais man bu ma soñoon gannaaw man maa ko créé man ci boobu maa ko créé defar ko man man wóolu naa ko man wóolu naa oto bi su ma soñoon oto bi ñu may ma ci ay kayit ma mën na ci preuve di ci tukki di dem ak ñëw fu ma bëgg dem dem ko ci biir Sénégal yëpp mën naa ci rouler oto bi di caaxaan. roulé ci normal di ci dem temps normal comme oto yi bu oto normal bu jógee temps bi muy def àgg mën naa ko def oto àgg maanaam su fekkoon oto oto cinq heures temps lay def ba Dakar oto bi mën na ko parce lépp lu golf mën mën na ko te oto bi stable na oto bi mën nga la neex ba nga ko dawal ba mu xëcc ba dugal quatrième bi bàyyi bi bàyyi direction bi du lu tiré du jàddu gauche du jàddu droite xam nga kon liggéey nañ ko ci ay normal lañ ko liggéey ci ay normes yu baax lañ ko liggéey man kayit boobu moom ci gën a soxal bu ñu ma ci kayit ma dawal ba prouvé léegi nag ñoom leneen li amul problème ñoom ñu ngi fi bu ñu gisee ne lii njariñ Sénégal la bu ñu ci gisee seen bopp ñu ñëw bu ñu ci gisee gis seen bopp itam wala alhamdu mais waaw mais daal loolu loolu mooy message bi pour état Sénégal état Sénégal loolu kayit moom laa soxloon ñu légaliser ma sama oto bi mu légal ma mën ko dawal comme ñëpp Euh, léegi bu ñu ko créé ba pare mu mettre ko loolu lu baax na loolu lu baax la loolu lu baax la ah loolu ah, bu ñu seen bopp oto bi mën nañu ñëw jël vérifié ko bu leen neexee mën nañu jël ñu dem vérifié ko yóbbu ko fu ne ngi nii de oto baa ngi nii man maa ngi fii fii nekk sama kii man li ma mën. li ma mën def naa sama premier pas mooy lii mooy en tant que sénégalais xam naa ne waruñoo nelaw parce que adduna bi boo xoolee léegi na bi dafa toll foo xam ne nit ñi nit ñi dañuy créer création mooy moom dafa xew maanaam adduna ba ba demee ba Chine nangam nangam ainsi de suite parce que création dafa baax parce que dañuy wax développement mais développement ci création la mën a jógee parce que imagine tey foofu boo waroon a jënd jënd benn machine bi jar 30 millions benn machine bi ah nga ñëw ah, chinois yi dañu ma dem si ñu jël moto yi moto vitesse yi jël moteur bi modifié ji benn affaire bay di bay normal du leen digg sax 400000 maanaam yooyu xam-xam yëpp mi ngi fi mais Sénégal yi xëy na mooy ni ñoo amul man li ma def nii ñu ma ëpp xam-xam foofu ñu ngi fi mais xam nga tam euh, ka nga xamante ni tey jii am nga problème mu dépense loo yóbbu sa kër wala nangam xam nga doo jëm jënd ay weñ ay 18000 ay nangam nangam di ko daggate nañu xam dëgg di ko daggate la xam lan moo la ciy fekk xam nga loolu moom Euh, bu fekkee euh, dañuy wax dëgg rek kooku euh, am na ñoo xam duñ ko def waaw ka xam ne tey jii dépense tëna ko këram wala mu am ordonnance wala mu am nangam nangam dem jënd ay weñu dix mille parce que kii tuuti tuuti man calcule ma ko mais def naa ci ay millions oto bi def naa ci ay millions mais man jaral na ma man su ma defal loolu jaral na ma waaw pour sama réew ma ne pour sama réew seggil sama réew seggil sax même sama président même seggil ko parce que tam lii ferte président la parce que la fekk benn Sénégal def dara ndamam la man suñu njiit yi il faut que ñun ñoo leen di siggil ñun population ñoo leen di siggil def dara góorgóorlu foo góorgóorlu def dara dañ naa ah, moom président bu ngeen a siggil dañ ah am na benn Sénégal bu defoon lii def nangam nangam fexe bokk ci man adduna bi yow yaay fexe bokk fépp nit fu muy dem kenn du ko fa yóbbu yaa fa yóbbu su bopp fexe bokk fexe dugg dugg ci kii bi sa empreinte daal yaa ko fi bàyyi daal ci gàttal ci empreinte parce tam boo xoolee la donc dafay defaroon oto ba mu dee ba mu gaañoo ba léegi kenn xamu kañ ay junni junni at ñun juddooguñ boobu ba léegi mi fi maanaam yooyu nit ki moo koy defal boobu kenn du la defal waaw waaw loolu la waaw dernier mot bi itam maa ngi leen appel maa ngi sant ñëpp sant waa Ziguinchor sant ñëpp parce que ñoom accepté nañ accepté nañu oto bi dañ ko accepté rafetlu ko waa Ziguinchor surtout même police yi damay daw ba yem ci ñoom police yi damay daw ba te buñu neexoon arrêté li nga nangam bi commandant police ñoom ñëpp kooku sama xarit la vraiment dafa mujj sax jox ma numéro am na ma vraiment bi ma gisee njëkk daw ba yem ca kawam ma yàgg na jàpp dafa ne uh booy jàmbaan nga vraiment yow chapeau léegi nag li li ci des nag mooy maanaam ginnaaw fii dañu fay nekk am nañu fa ay kilifa ay ñoom gouverneur ak ñoom préfet yooyu ñooy suñu kilifa te xam naa nag ñu baax lañ parce que tam moo neexoon maa ngi daw ci biir dëkk bi maa ngi romb buntu préfecture léeg-léeg ba romb buntu gouvernance nanga nag su leen neexoo ñu ne weñ ko affaire ba daw ci biir dëkk bi te amul kayit moom kooku lan la bu leen neexoo ñu dem lijjanti ko parce que ñoom ñoo yor ñoom ñooy ñooy constitution bi ñoo yor réew mi ñoo ñoo yore fii ñoom ñooy euh, kilifa yi su leen neexoon dem lijjanti ko lijjanti ko donc ñoom ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant loolu mooy sama dernier mot baax na Давай.